Dakar Dakar Dakar Dakar. Thank you. Gracias. Sénégal bu war a tànn gàllankoor boo xam ne tegu ci bopp gaaw a leer tegu ci bopp xaalis bi ñuy joxe tegu ci bopp ay discours yoo xam ne xaw a mel bu tegu ngeen xam yow ni à partir du 24 mars indépendance bi nga xam ne boobu c'est excellent ba ngeen war a jël à partir du 24 mars. def ngeen ngeen ñoo changé def ngeen ko changé def ngeen ko doon changé ñu jaar histoire bi nga xam ne ñoo ko yor à partir de village vers quatre quinze kon dañoo ñëw rek di ko mën di ñaan di ko am nga nag président pour pour la première fois ñu ngi def pour la première fois xam nañ ni askan wi dina far ay nit yu sell ay nit seen loxo set ay nit yoo xam xam am gis-gis ay nit yoo xam ne liggéey rek mooy tax a jóg kon nag ñu gërëm askan wi moo tax comme am na suñu argument li leen wax mooy

Est-ce que vous

moom day dem yoonam yeneen semaine deux ans du borom bi dese kon bu ñu waxati Macky Sall gis nga lii benn danger moo am ci Sénégal mooy candidat bi nga xam ne kenn bëgg ko moom Macky Sall bi nga jàlloon sax bëggatu ko kon kon kenn ku nekk ñun ak ñi nekk ci opposition bi Thank you. gëm naa ne kenn mënu leen fay tey rek ci suñu conférence de presse daa jëmbal bépp nit ñi ak ñoom